ku ne xam na ni conseil constitutionnel déposé na wala boog génn na kayit bi wane ni list provisoire bi mi ngi nii ñii ñooy candidats yi donc génn na lu mat ñaar fukki candidat ak benn ñaar fukki candidats yi ak benn nag comme ni ngeen ko xamee candidats yi ci bari ci nguur gi lañ bokk ñu ci bari ci ñoom wax naa leen ca lañ bokk te danaa ci ñëwaat ay jamono damay xaar ba ci kanam ba nga xam ni euh, ñu ngi waaj a dugg ci tànn bi bu ko defee ñu gën a leeral candidat yi nga xam si ñun amuñu benn sikki sàkk que ci nguur gi lañ bokk nguur gi lañ àndal bu boobaa daan leen ko leeral ba mu leer parce que ñun suñu rôle mooy leeralal nit ñi pour que ñi nga xam ne mën nañ ne nasaxal seenum xel ak di leen jéem a lëndëmal seenum xel ñu leeral ko ba mu leer naññ pour ñu xam fi ñuy taxaw kon nag loolu bu jotee dinañ ko gën a leeral maintenant nag liste boobu nga xam ne moom la conseil constitutionnel génne for nañ ci wewu béy que ku ci mel ne amado Ba nee na yeey day récuser yenn candidats yi parce que amado Ba xool na liste bi xam na ne liste boobu dèjà am na kandidaa bu ci manqué dinañ ci ñëwaat waaye ñooñ ci nekk ku néew amado Ba leer na ko ne mënu faa gagné mënut a dem deuxième tour. léegi nag d' après ni ñu waxee mooy amado Ba day wuti pexe moom ñi mu àndal pour récuser yenn candidature yi pour ñu man leen a invalider bu ko defee moom mu am chance ak néew pour gagné mais Amadou Ba amul fenn fu mu mën a amee chance bu élection yi jaaree yoon. quartier am sax mënu koo gañe bay gañe Sénégal bu yëfi jaaree yoon Amadou Ba Parcelles Assainies mënu koo gañe bu élection yi jaaree yoon waa parcelle ni ma leen xamee du taxaw di votel a tappalekat bu mel ne Amadou Ba léegi nag bu ñu nee ba Amadou Julde Ba taxaw naan moom day récuser yeneen candidat te moom kenn récuser wu ko yow Ba yow war ngaa ñemee taxaw naan da ngay récuser benn candidat yow yow Ba nga war a leeral yow fan nga dëkk ni Sénégal di ci wax heure bi waroon a fekk nga leeral ko parce que sénégalais boo gis fii am na dëkk cosaan wala baayam am dëkk cosaan wala maamam dëkk cosaan parce que am na ñoo xam ne effectivement Dakar lañ dëkk am ñu ay dëkk cosaan mais boo boo leen laajee dañ naan la man sama waajuru góor tel dëkk mooy dëkk cosaanam wala mun la sama maam tel dëkk mooy dëkk cosaanam léegi Amadou Julde Ba léegi ban dëkk mooy dëkk cosaanam maanaam dëkk cosaanam mooy dëkk boo xam si moom fa la juddoo fa wala waajuram wu góor juddee fa wala màgge fa wala maamam judde fa wala màgge fa fii ci Sénégal na ko kon nag nañ bàyyi caaxaan yi moom Amadou Diouldé Ba su ma nee taxaw naan day récuser ay candidats loolu jàpp naa ne nag yëpp sénégalais yi weesu ko kon Amadou Ba encore une fois yow sa bopp yaa waral leeral ndax sax d' abord tu as une double nationalité parce que li ngeen di tuumaal Karim Wade Karim Wade am na amul man gis naa ñu koy partagé ci réseaux sociaux yi que effectivement am na ñu ko vérifié man am na ku ma woo ma vérifié naa ko et effectivement en France parce que France seen fichier ñoom na bu ñu ko foofu ku bëgg a vérifié le mën ngaa vérifié donc xam ñi ci nekk ak ñi ci non nit ñi capturé nañ ko ba wane ko wane ne Amadou Ba euh, wane ne Karim Wade di moins am na nationalité française waa PDS nag ñu ngi naan nationalité française am boobu renoncé woon na ci en 2019 waa loolu nag man damaa dégg ab juriste bu ni ma euh, boo xasee atteindre la majorité en France mënatoo te te recu te te euh, te woo ak ci ci sa ci sa nationalité mënatoo ci renonce loolu am na juriste bu ma ko wax alors que en 2019 booba euh, Karim Wade moom fekk nay nawet yu bari booba waaw kon nag euh, buñ nee foofa euh, lañ wax ne moom la moom la renoncé woon ci nationalité am loolu moom wax dëgg yàlla jàpp naa ni ça ne peut pas être sérieux mais li am solo daal mooy koo xam ne da am double nationalité waroo nekk candidat ci sunum réew naam nag am na ñoo xam ne man jàpp naa ne amoon nañ ko fi même sunu premier président de la république sax feu Léopold Sédar Senghor en réalité amoon na double nationalité donc nañ euh, nañ jàpp ne daal ñun Sénégal réew mi dox tegul ci yoon man nag du ma cautionné koo xam ne amul euh, euh, nationalité boo xam ne si nation nekkul exclusivement de nationalité sénégalaise comme ni ko loi bi waxee parce que la loi est claire il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise maanaam waroo rax dara lu nekk bitim réew ci en terme de nationalité da nga war nekk sénégalais kese mais munoo nekk sénégalais ak français ak beneen wala beneen réew ba noppi bëgg taxaw naa da ngay jiite sénégalais yi loolu la loi bi wax dañ cee war a tënku bu dee Karim Wade loolu ñu wax ne moom candidature am moom Karim Wade c'est entaché du fait que moom il la double nationalité moom Karim Wade dañ koo dañ koo war a kon euh, saytu bu dee am nañ ci firnde euh, mënta mënuñu valider candidature am effectivement parce que la double nationalité mënoo ko am ba noppi di nekk candidat ci biir réew mi bu dee Amadou Ba aussi ñiy wax ni am na double nationalité que dafa am nationalité française am nationalité sénégalaise am na ñu ko wax Amadou Ba aussi loolu war nañ koo saytu bu ko defee su fekkee am na ko ñu éliminer ko pour que du doon candidat mais moom bu ñu demee ba muy taxaw moom Amadou Ba mu naan moom mooy porte moom mooy récuser ay candidat moom Amadou Ba sañ na lool Amadou Ba ñeme naa taxaw Sénégal di wax naan di wër te bokk parce que moom dëkkul ci réew mi moom Amadou Ba loolu cëram la man de jàpp naa ne loolu dañ koy wax rek waaye du Amadou Ba ko def Amadou Ba ñeme nañoo yàpp ñun sénégalais bay taxaw fii di wax kii mooy sénégalais kee du sénégalais mais c'est extrêmement grave loolu loolu su fekkee lu am la lu graaw a graaw la que Amadou Julde Ba mooy taxaw di wax suñu réew mi fii ku fi nekk sénégalais ak ku fi nekkul sénégalais ak koo am daa am double nationalité ku amul double national c'est Amadou Ba qui règle loolu su fekkente ni noonu la demee c'est extrêmement grave mais man je n'exclus pas le débat de la double nationalité parce que loolu mooy yoon comme loolu yoon wax dañ koo bind ci suñu saatu réew que boo nekkul sénégalais a cent pour cent euh, boo amee beneen nationalité boo am dolli nga ko ci rek yow mënoo nekk candidat ci Sénégal loolu lu ñu war a lu ñu war a saytu la pour que ñu xam ku ci nekk ndax candidat nga war a doon wala wala wala waroo doon kon candidat kon nag li nga xam ne moom moo am mooy euh, conseil constitutionnel tey euh, ak démb la wax ne képp koo xam ne bëgg nga def recours bu mën a doon euh, sur la liste de candidature bien sûr leneen loolu la ñu wax na nga ñëw nga def sa recours mais nag ñun li ñu jàpp mooy euh, conseil constitutionnel képp ku def recours ci candidature am am na droit euh, daf ko war a saytu li ñuy bañ mooy ni ñuy def recours ñëw di rejeter recours yoo xam ne am nañ pour addu ci parce que suñu jëlee ki nga xam ne moom mooy candidat bi nga xam si moom la ñëpp di xaar nga xam ne dañoo gis ne liste bi bokku ci parce que tout simplement ba ñuy def parrainage bi moom euh, dañoo ñëw def contrôle boo xam nee nañ ñoom daa am ab pièce bu ñu gisul léegi nag loolu comme ñoom loolu la conseil constitutionnel bi wax ba dugul ci fond dossier Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko dafa am droit def def recours te avocat am maître Ciré Clédor Ly euh, décidé na comme moom mooy mandataire Ousmane Sonko dem déposer li nga xam ne moom mooy recours te comme altine ak talaata ci la recours yi di am kon tey. ci la maître Ciré Clédor Ly décidé ni moom day def def recours am dem def recours am nag pour que mu wone lu tax Ousmane Sonko ñu war ko boole ci candidat yi pour que au lieu de vingt ñu dem vingt deux candidats parce que Ousmane Sonko dafa war a nekk candidat dafa war a nekk candidat parce que amul lenn loo xam ni mën nañ ko ko opposer luy tee mu nekk candidat parce que li ñu laaj juróom-ñeenti pièce la daanaka mën nañu wax sax fukki pièce la parce que bu ñu dee jël këyit par këyit dañ juróom-ñeenti pièces la mais juróom-ñeenti pièces yi boo xoolee dem na sax ba fukki pièces parce que euh, caisse de dépôt et de consignation moom moo nekk ñaari pièces loolu moo indi fukki pièces yi caisse de dépôt et de consignation dañ lay laaj d'abord sa quittance léegi boo andee sa quittance nga andi sa attestation te ñun dañu jàpp ni euh, loolu dinañ ci ñëwaat euh, ñaari kayit yooyu daanaka ñoo yem parce que bu fekkente ne déposé nga ci condition yu leer mu leer na ne yow li nga déposé kenn neewul chèque bi baaxul kenn neewul dem nañ xool ko fekk ñu fa xaalis ba kon yow normalement loolu rek doy na sëkk parce que leen soxla mooy fay caution bi fay caution 30 millions yi rek lañ soxla këyit bu ko mën a firndeel day daal di jaadu kon Ousmane Sonko kayit yi ko laaj yëpp am na ko yëpp déposé na ko léegi bi ñuy saytu nag candidat yi ñoom yëgguñu ba ca fond ba dañ ne rek am na pièce bu manqué lañ bëgg a wax mooy attestation ñëwul attestation CDC bi mooy attestation bi firndeel ni ñoom. waa CDC caisse de dépôt et de consignation jël nañ xaalis bi nga xam si moom lañ leen joxoon ci chèque kon versé nañ ko ci compte CDC kayit boobu donc moom la ñu wax ne moom moo nekkul ci dossier Ousmane Sonko mais te ñëpp xam ne kayit bi ba mu demee di ko jël nañ ko koo xañ administration bi ñoo ko tere loolu dinaa ci ñëwaat kon li nga xam ne moom moo am daal mooy ñun dañu gis ni ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom la sénégalais yi di xaar pour mu doon candidat ci élection yi nu jëm euh, le vingt cinq février deux mille vingt quatre comme moom la sénégalais yi di xaar pour mu doon candidat li ñu xel mënta nangu moo ñu jëm fee génne benn liste le 20 boo xam ne Ousmane Sonko di ci bokk parce que soo ko ci boolewul fan nga koy teg Ousmane Sonko lan moo ko mën a teree bokk ci élection yi donc une personnes lañ lañ wax ne ñoom ñoo mën a bokk ci élection yi dañ cee war a dolli Ousmane Sonko mu nekk vingt e personne bi parce que li ñuy laaj am na ko amul benn pièce bu ñu laaj par rapport à boo xam ne Ousmane Sonko amu ko bu mu ci amul rek dañ ko koo xañ bu dee fiche bi nga xam ne moom mooy fiche parrainage am loi bi li mu wax modèle la wax su fekkente ni andi nga même modèle bi da ngay dañ dañ koy comptabiliser te Ousmane Sonko andi na même modèle bi model de fiche de parrainage bi nga xam si moom lañ jox candidat yëpp te moom après le jugement de Ziguinchor ak le jugement de Dakar mu yónni woon son mandataire pour mu dem jëlali ko fiche am ñu xañ ko ko fiche boobu ñëpp yore même fiche bi moom la Ousmane ko yore parce que données yu ñu def fee rek am na ci fiche Ousmane Sonko te Ousmane Sonko treize députés ñoom ñoo ko parrainé kon Ousmane Sonko sur cette base kenn mënu koo teree nekk kandidaa bu dee teg nañ ko ci yoon kon encore une fois nañu bàyyi jaay doole bi conseil constitutionnel buñ ko fi tegee c'est pour que bu ñëpp jaaxlee kuñ fi nar a jaay doole nga dem fa mbaxana doone benn surtout kuréelu attekaay bi gën a mag ci mbirum élection moom mooy conseil constitutionnel réew moo dem ñii dañ koy tuddee conseil constitutionnel ñii tuddee ko cour constitutionnelle mais conseil constitutionnel day exercer son pouvoir parce que le conseil constitutionnel dafa nekk une émanation de la justice dafa nekk démembrement de la justice te la justice est un pouvoir la justice warut nekk une administration judiciaire maanaam nekk fi ñu naan ko taxaweel ni tëddeel ne lu administration bëgg mu fekk si ko ca loolu du rôle justice justice dafa nekk pouvoir boo xam ne si koy exercer kon la ñuy xaar ci conseil mooy mu jël ay responsabilités am Ousmane Sonko bu avocat am maître Ciré Clédor Ly déposé recours bi te loolu la wax tey ni moom lay déposé su ko déposé na ngeen ko jël su ngeen ko jëlee ngeen saytu ko ngeen xool dossier bi li ci nekk lépp bu ko defee ngeen xool ndax am na lu ci manqué ak lu ci manqué wul Ousmane Sonko mënta am dossier bu manqué ndaxte bu dee li nga am moom mooy dossier yi ñu ko jéem a daan yëpp la contumace nërmeelu na te ci contumace rek lañ mënoon a basé wu conseil constitutionnel nag mënta weddi boppam mënta wax ci décision que Ousmane Sonko léegi moom am nekkatul en état de contumace euh, moom ak euh, euh, tribunal tribunal bu Ziguin Ziguinchor bi nga xam si moom moo ko dugalaatoon ci fichier électoral bi ak tribunal bu Dakar nga xam non seulement dafa woon nañ ko dugalaat ci fichier électoral mais daf ci tegaat ni loolu mu ñu ko atte woon te fekkewu ko ñu tudde ko état de contimence moom mu nekk un contumax mu ne loolu nërmeelu na parce que jàpp nañ ko te suñ ko xasee jàpp lépp luñ ko daanoon day nërmeelu waaye comme jàpp nañ ko kon léegi comme leen ko xañ di ko jaay doole ca ca caisse de dépôt et de consignation ak leen ko xañ ca DGE ñu ko sukkandiku woon ci loolu kon mënuñu ko ñu ko ñu ko tere am parce que ñoom justice mënuñoo àtte dara ba noppi bañ cee tënku kon comme ñoom leen ko daanoon ci contumax ca lañ sukkandikoon ba génne ko ci fichier électoral bi ñaari juge wax delloo leen ko malgré loolu delloowuñ ko mais ñoom d'accord nañu jàpp nañ ko te justice Sénégal moo ko wax ne te buñ ko xasee jàpp lañ ko daanoon nërmeelu na mais lan ko daanoon bu nërmeeloo mënuñu caa sukkandiku pour tere ko cee nekk candidat donc loolu mooy jafe-jafe bi donc mënuñu ko tere nekk candidat sur la base d'un jugement qui a été anéanti kon nag nañ bàyyi caaxaan bu dee procès Mame Mbaye Niang aussi wax nañ leen ko waxati leen ko ñoom même bu fekkoonte ni leen ko daan ci procès Mame Mbaye Niang bi ñu ne buñ ko dëggalee am nay article ñii ni article yi nee nañ loolu du ko tee nekk candidat ñeeni mën na koo tere nekk candidat li am solo mooy ak quel que soit alfa li am solo mooy guleet ñu gis ci am réew ñu bëgg empêcher le chef de l'opposition ki nga xam moo ëpp doole ci opposition bi ñu bëgg koo empêcher mu nekk candidat tout simplement ba parce que nee nañ nee nañ daa duural ab ministre te lam koy duural du vie privée lu askan wi yëpp bokk la alal ju ñëpp bokk muy dénoncé wax ne dañ koo randal ñu ne léegi noonu comme moom wax na ne dañoo randal alal ji léegi moom da koo diffamé sur cette base ñu mën cee jafandu ba tey koo nekk candidat loolu dina nekk tâche wu rëy ci Sénégal dina nekk gàkk-gàkk pour démocratie bu Sénégal donc loolu xel mënu ko nangu le simple fait que ñu ne diffamation la rek ci loo wax mënuñu laa tere nga wax alors que nit ñun wax ne danoo sàcc ñi ngi fi ñu bëgg leen defi candidat mais nan la nit di ay milliards u Sénégal ñu def ko candidat nit wax ne milliard Sénégal kenn waru koo sàcc ñu ko doo fi nekkee candidat mais c'est la yow nit taxaw sàcc suñuy milliards ñu ne candidat la nit koo xam ne nag moom daa am ku sàcc suñuy milliards mu ne waru ko woon a sàcc ñu ne ko non non comme yow wax nga ne waru ko woon a sàcc doo fi nekkee candidat mais kee moom sàcc na suñuy milliards moom mën naa doon candidat mais Sénégal mën réew la mën réew mi damay toog a caag ma ne waa ñun est ce que ñu ngi ci réew yi c'est-à-dire loolu lim signifié mooy Ousmane Sonko est un danger parce que daa jub yow boo taxawee di kaas ni waruñoo randal sunuy alal sunu alal dañ koo war a ñoŋal ku ko ñoŋal euh, ku ko ñoŋalul ñu teg la ci yoon diw daa am luñ ko jiñ ab rapport moo ko taxal mais loolu li gën a leer mooy kooku kay ñu dem procès bu leer rek bu ñu demoon au fond dina leer mais nag ñu bëgg a taxaw parce que wax nga sa xalaat ci am réew ñu ne sa wax ji nga wax rek war naa tax yow doo ci nekk candidat mais lii kan moo ko fii nangoo lii conseil constitutionnel bu ko nangoo dina nangu lu garaaw a garaaw a dina nangu loo xam dina ñu topp topp suñuy doom topp suñuy sët conseil constitutionnel jël leen seen responsabilité lii nguurug président Macky Sall bëgg a def su ngeen ko ci fekk see yéen conseil constitutionnel ba wax ne Ousmane Sonko mënta doon candidat parce que dafa am këyit bu mu waroon a jël ca se ñu tuddee ko ab attestation ñu ne moo manqué ci dossier Ousmane Sonko te Ousmane Sonko déposé ay somation déposé ay kon ay ay ay constat d'huissier déposer ay vidéo yuy wane ni ñoom ñaar ñëpp muy DG muy caisse de dépôt de consignation dañ ko koo xañ ci jaay doole mu indi ay firnde te yéen ngeen am ci jurisprudence loo xam ne jaaroon na fi loo xam ne na ngeen ko àtte woon mooy bu dee dafa am défaillance ci côté administration bi kenn mënu koo opposer l'intéressé waa léegi nag tey même cas bi am ñu ñuy xalaat un instant que conseil constitutionnel sañ na def revirement de jurisprudence maanaam dellu ginnaaw ci la ngeen atte woon wax ne loolu lañ atte woon waaw mais dañ cee bëgg a dellu ginnaaw dellu ci ginnaaw pour kii pour les beaux yeux de kii bu ëllëgee mu yàq suñu réew yàq suñu justice ñu koy cité mu nekk gàkk-gàkk ci juróom-ñaari sages yi yi ñoom ñoo taxaw di atte loolu bu leen ko dara jàll seen adduna jël leen seen responsabilité ngeen valider la candidature de Ousmane Sonko mu nekk candidat sénégalais xool kan la ñuy fal parce que su ngeen fi mayee doole administration bu senegal que mu mën a invalider une candidature sur la simple euh, euh, sur la base d'un refus de l'administration ah de de délivrer donc euh, une attestation wala euh, des fiches de parrainage loolu bis bu ngeen ko fi nangoo ça veut dire que yéen réew mi yàqu na loolu ça veut dire que président bu fi ñëw ñëwati xam nga looy def léegi ku la lakkal doo ko def dara da ngay bàyyi ba élection yi jub nga seet candidat yi la lakkal parce que bu nee conseil constitutionnel dani dossier bi moom du ci def lenn dul un contrôle technique parce que contrôle technique mooy xool ne bii pièce waroon na am bii pièce am na am am gisuñu ko lool mooy contrôle technique mais mënu leen a yem yéen ci contrôle technique contrôle mécanique un contrôle mécanique je veux comment pouvez-vous faire un contrôle mécanique des pièces à fournir daan na ci di yem da ngeen di dem ba ci fond bi su ngeen nee amul suñ leen ne andilee ab recours buy wane ni li tax amuñu ko lii moo tax wala ci fond de dossier bi ngeen gis ci pièces yi mu leer nañ ne pièce boobu li tax amuñu ko wax nañ leen ni lii moo tax amuñu ko parce que administration moo jaay doole CDC lañ ne ko bul jox Ousmane Sonko wala mandataire usman Sonko bul ko jox ay fiche bul ko jox ay euh, bul ko jox attestation am loolu la ñuy wax CDC mu bañ ko ko jox euh, kees ñële tamit waa waa DGE ñu ne leen yéen it bu leen jox Ousmane Sonko son représentant bu leen ko jox ay fiches de parrainage am waa léegi te ñoom ñaar ñëpp li ñuy def teguñu ko ci yoon parce que bu dee ku mënti nekk ci ñoom ñaar juge ñaari juge ñoo ni jox leen leen ñoom ñu bañ conseil constitutionnel yéen mu leen di seen bopp parce que même juge yooyu dañoo bokk ci magistrature bi bokk ci euh, euh, ministère de la justice ngeen bokku liggéey bi ne serait-ce que pour ngeen respecte les décisions de justice war leen nangu yéen seen ay kuréel jël ay dogal wax ne nañ def nangam administration taxaw défier leen donc y' une défiance ci li nga xam ne moo nekk di am défiance am te pourtant yéen bi défaillance amee parce que da ngeen a am jurisprudence défaillance moo amoon en 1998 avec la jurisprudence Insa Sangaré foofu du woon sax défiance défaillance moo amoon fii nag dafa am défaillance am défiance léegi nag bu amee défaillance ak défiance alors que yéen bi mu amee défaillance kese mooy administration bi la mu waroon def defu ko woon ngeen ne lam waroon a def waru woon a tëj bureau yi dafa waroon a jox possibilité candidat yëpp ba minuit ñu mën a déposer seen caution on était en 1998 conseil constitutionnel jël responsabilité am daa di da wax ni day déclarer recevable la liste de Insa Sankaré pourquoi parce que Insa Sankaré dem na pour déposé caution bi dans les délais ñoom ñoo ko xañoon comme nag loolu am na amul benn problème kon léegi li yéen li ngeen jàpp mooy kon Insa Sankaré moom noonu ngeen ko valider loon listam parce que da ngeen a jàpp ni euh, moom dañ koo jaay doole loolu nga xam ne moom moo ca amoon loolu moo amaat fii kon encore une fois yéen la ngeen defoon même moom ngeen mën a defaat Insa Sankharé munu leen koo valider en 1998 sa liste parce que nee ngeen administration bi li mu def waru ko def parce que da ko waroon a ubbil yi mu ñëw déposé fekk booba ñoom dañoo teel a tëj seen i bureau pourtant amul woon attestation de euh, quittance kese la amoon ngeen ne Insa Sankharé ci seen séance su 15 avril 1998 ngeen toog yéen waa conseil constitutionnel ña fi nekkoon à l'époque jël seen responsabilité daan ne étudier nañ dossier bi gis nañ ne am na pièce bu ci manqué muy attestation de muy attestation euh, bi nga xam ni moom la ñuy wax euh, attestation CDC bi bi wane ni xaalis bi dugg na ci compte CDC mais amu ca woon quittance kese lañ amoon mais teewul am na ay preuve yu Insa Sankharé wane ni ñoom waa. trésor ñoom ñoo tëjoon mais fii tamit Ayib Daffé am na quittance te quittance bi déposé na ko kon dossier Ousmane Sonko am na quittance comme ni dossier instance Sankharé bi amee woon quittance waa léegi lan moo des mooy euh, amul attestation mais dossier instance Sankharé amul woon attestation te dañoo validé woon candidature bi ñii tamit amuñu attestation parce que leen ko xañ kan moo leen ko xañ administration bu Sénégal li ngeen di def mooy jël seen responsabilité parce que su ko deful lim ñu nar a Sénégal bu ëllëgee yéen juróom-ñaari juges yi yéen lañ nar a lim ci ay magistrats yoo xam ne ñoo fi nekkoon ñuy jaay doole ñoom administration bu Sénégal xañ ay nit ñu am seen i këyit léegi sur cette base ñu invalider seen candidature loolu bu ngeen ko mayee mooy vous créez une situation de chaos au Sénégal léegi lu muy signifier mooy ku fi nekkati président soo bañee benn candidat lakkal la da ngay bàyyi ba élection yi jege nga fexe daal ba candidat yi la lakkal nga dem daan maire yi ba nga xam ne fa la dëkk parce que candidat bu nekk xam nañ fan la mën a amee fan la mën a amee euh, kayitu juddoom mën nañoo dem ca maire yi ba nga xam fa la war a amee kayitu juddoom parce que kayitu judd dafa bokk ci pièces yi yi ngay déposé pour nekk candidat bu ko defee président bu fi nekk da ngay dem ca maire yi ba nga xam ni fala la candidat yi nga ragal nekk par exemple nga gis ne am nga candidat bu nekk euh, Louga te ragal nga euh, moom mu lakkal la nga dem ca maire Louga daan ko léegi candidat tel ba comme élection yi war naa déposer euh, euh, war naa déposer moom benn extrait de naissance boo xam si euh, du mat six mois léegi yow demal ci six mois yi bul ko fi jox benn copie bu fi ñëwee di laaj bul ko jox bu ko defee bu ñëwee di laaj ñu koy dawloo di ko dawloo di ko dawloo ba du ko am bu ko amul du mën a déposer loolu rek boo ko waxee kon baax na léegi bu ko defee Euh, man ngaa galgal ay candidat foofu ba ñu bokk te da ngay koy sukkandiku ci décision conseil constitutionnel bu dee conseil constitutionnel loolu la décidé néew ma nag loolu la ñuy décidé mais ñun la ñuy xaar ci yéen mooy ngeen jël seen responsabilité wala bu dul loolu nga def comme ni euh, président Macky Sall def ni caisse de dépôt et de consignation candidat bu ñëwee kit euh, quittance sax bu leen ko ko jox bu ñëwee barricade leen seen i porte bu mu dugg ngeen bloqué ko ba mu dugg daa dem daan ne beneen candidat sangam moom it gi éliminer leen mu ko nii bu ko defee administration bi day utiliser les canaux de l' administration pour éliminer candidat yi nga xam si arrangé wuñ ko mais loolu su ko justice nangoo mais musiba la ci réew mi loolu conseil constitutionnel mënu ko nangu loolu bu ko conseil constitutionnel nangoo mooy réew mi yàqu na bis bu conseil constitutionnel nangoo lii nga xam ni moom lañ bëgg ni Ousmane Sonko amul attestation bu CDC te ñoom. wane nañ ni li tax Ousmane Sonko amu ko moom le mandataire de Ousmane Sonko wane na ay firnde que dem nañ fa demati fa demati fa demati fa ñoom ñoo leen ko bañ a jox te am loolu constaté nañ ko par huissier constaté nañ ko également euh, au niveau de la euh, direction générale des impôts euh, au niveau de la direction générale des élections loolu tamit moom lañ def ci li nga xam ni moom moo am ci procédure bi yëpp à chaque fois ñu xañ leen dara loo xam ne am nañ droit diggante direction générale des élections ak caisse de dépôt et de consignation te foofa sax moom am nañ sax far quittance attestation rek lañ amul kon won nañ am nañ ay preuve que versé nañ waa léegi loolu bi mu amee kon sur quelle base la conseil constitutionnel mën a taxaw ne Ousmane Sonko mun mun ñoo valider sa candidature pièce moo ci manqué loolu raison la alors que pièce boobu ci manqué yow am nga jurisprudence buy wane bu ci manqué tamit te nga andi ay preuve que demoon nga pour laaj këyit ban te am nga ci droit te yéen d'accord ngeen ci am na ci droit donc bu fekkente ne pièce boobu rek moo manqué mais mun leen cee basé pour éliminer ko mun leen ci basé pour invalider sa candidature kon li ñuy xaar ci conseil constitutionnel mooy ñu jël seen responsabilité lii président Macky Sall bëgg a def bu leen ko nangu su ngeen ko nangoo di ngeen tooñ Sénégalais yi su ngeen ko nangoo di ngeen yàqal réew mi su ngeen ko nangoo di ngeen fi bàyyi aw aw woy wudul fay ba mukk parce que da ngeen a am ay doom ñu bëri ci yéen di ngeen a am ay sët di ngeen a war a toog ëllëg yàlla na yéex. bu ngeen fi nekkatul ñu leen di fàttaliku ci lu rafet comme ni ñuy fàttalikoo tey fa kebaa Mbaye loolu la ñuy xaar ci yéen xaar ñu leneen ci yéen loolu nga xam ne moom moo amoon ca 1998 euh, sages yi fi nekkoon ci conseil constitutionnel jël seen responsabilité loolu la ñuy xaar ci yéen tamit ngeen jël seeni responsabilité parce que fii àdduna bi képp ku fi def lu baax bu ëllëgee ñu fàttaliku ko parce que 1998 ma magistrat ya nga xam ñoo ko àtte woon tey jii leer na ma ne ñu bëri ci ñoom euh, euh, ñu ci bëri ci ñoom xëy na sax dundatuñ te tey jii ñu ngi leen di fàttaliku di wax seen jaar-jaar di wax seen responsabilité bi ñu jëloon kon nag yéen it àdduna bi jeex na ba noppi dara jaru fi yenn yi ci président buy dem wuru laa def loolu loo xam ne bu ëllëgee da ngay laloo sam nday joor te boo laloo sa nday joor ëllëg war a jàkkaarloog yàlla subhanahu wa taala war a rendre compte gisuma lu ko fi jar dara jaru ko fi ci àdduna daraja jaru ko fi alal jaru jaru ko fi aw aw tur jaru ko fi lenn jaru ko fi dañu jàpp ni fii Sénégal képp koo xam ne taxaw nga fi def fi loo xam ne waroo ko fee def ëllëg lu mën a am dañ koy tegaat ci table ji te loolu jàpp naa ne yéen yéen a mag loolu parce que da ngeen def ay carrière rafet ku ci nekk nga jaar fi nga war a jaar yore ay juridiction gérer ko ba heure bi ba nga xam ne ñu bëri ci yéen léegi ngeen dem retraite parce que ku ne xam na ne euh, conseil constitutionnel ku fay nekk mooy ñi nga xam ñu ngi ci fin de carrière ñoom ñoo fay nekk kon nag dara jaru ko fi bu leen andi benn gàkk-gàkk ci seen carrière jël leen seen responsabilité parce que la justice ne pas euh, n'est euh, au service de l'administration la justice est au service du peuple la justice dafa war a taxawal pour ñëpp tëdd njaaxaanaay justice c'est un pouvoir prenez vos responsabilités le pouvoir juridictionnel bi nga xam si yoonu réew mi moo leen ko jox